في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه بسم الإله يلقونه yabal ale صل على ab Ahmadou Bamba Xaadimu ah, Rasuul te lépp yi dëgg borom Tuuba jërëjëf borom borom Touba Senhor, eu sou o lugar. mbokk yi comme ñu leen ko waxee woon démb ñu ñëwoon fii ci avant premier bi waxoon ak Ablaye njaay nekkoon ci waañ bi waaye tey ci bisu bëccëgu màggal gi ñu tase ki nga xam ne mooy Serigne Souleymane Dione ñu bàyyi ko mu présenté wu waaye wax yóbbalam ci màggal gi nga xam ni moom lañ fi dajee tey kon Souleymane dañ lay bàyyi rek nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci àddina bi yëpp. Mm-hmm. waa jëwriñ ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen màggal. di ci jiital suñu yaabooy bi ci dal bi ak Sidi Baara yi nga xam ne mooy sama xarit moo ma fi indi ma yàgg di teew màggal gi di ko ànd ak moom di ci bég lool ci teew bi ñu fi teew ak dal bi nii mu demee ak nii mu yaatoo ak nii fi mbokk taalibe daje ak nii fi màggal gi màggee loolu ñu ngi ciy bég di leen siyaar bu baax waaw di bég ci bëccëgu màggal gi nag nii mu demee xam nga màggal sëriñ bi da koo tafsir ba pare woote ci sëriñ bi dafa ne yéen ñi dëkk ci dëkk bi ñii di ay gan te dëkkuñ ci dëkk bi bu ñu ñëwee génn leen seen néeg yi ngeen jox leen yéen ñi dëkk ci dëkk bi ñii di ay gan te dëkkuñ ci dëkk bi bu ñu ñëwee wàcc leen seen lali ngeen jox leen ñu mel ni ku ko questionné ne ko lu tax mu ne yàlla de defal na ma loo xam ne dama ko sant ba dama lott ci mën a matale cant gi moo tax ma woo leen pour ngeen sant la ko waaye sant gi nag daa am lu muy deme sëñ bi tafsir ko bind ko wax ko mu ne li daje ci ginaar ba ci gëléem ba pare na la yow murit bi bul xeeb ginaar waaye bul yéem gëléem waaw moo tax loolu di ak cant léegi cant gi nag sëriñ bi nee na sacrifice bi moo ci am solo mooy deret bi ñuy tuur boo leen di bernde boo xoolee lu bëri gaay dañ ko cee boole mu baax lool ndax ay jullit fu ñu daje dañuy def yëfu jullit xasida day jóg kaamil bi jóg lépp jóg mais nag sëñ bi li mu wax ne mooy njariñ tey secret te mën a yóbbu jaam mooy bernde bi mooy sacrifice humain. ab laa Ndiaye loolu la xam. waaw loolu loolu loolu la gaa yi xam loolu murit yi ñu ngi ciy commencé am réalisation ah. parce que dem nañ ba xam ne sacrifice boobu ngay tuur deret boobu. Ah. ngay tuur ngir yàlla dafa am ay vices intérieurs yoo xam ne sëñ bi nee na julli mënu ko dindi woor mënu ko dindi natt azaka mënu ko dindi waaye loolu sacrifice su màggal gi da koy dindi mooy les vices intérieurs mooy ay soxor ay iñaan ay bon ay bañ a yaatu yooyu nga xam ne ci biir xolu nit la la nekk nee na loolu deret boobu ñuy tuur di ko rendi waaw day feeñ loolu day day day day day dañ day dañaale moo tax nga di gis waa jékki-jékki rek taxaw yékkalu kàddu cantam ne day mel ni Mbàkke man damaa nayoon lool te nay gi deñ na kii ne la damaa soxoroon lool te soxor gi deñ na parce que ñamu cant gi wee koy def te ñam bi sëñ bi nee na du n'importe quel ñam parce que ñam bi ñamu yàlla la sacrifice boobu ñam biñ ciy togg ñamu yàlla la parce que lii dañoo tuur deret ngir ngir yàlla xam nga ñaari nit mun na rey nag mais duñ bokk liñ koy doyee kii da koy rey parce que daa am xàmb yu ko digal kii rey ko te yàlla tax ki ko reyee te yàlla tax moo tax doo xool parce que màggal mos nga gis ku ñëw rek ñu ne ay mbiram da ko daan tere gis deret mu gis deretu nagu màggal di di yëseeg yooyu kenn du yësi parce que sëñ bi nee na ñam googu ñamu yàlla la te bu dis dix-huit safar premier safar bu tàmbalee nee na ni ko waa safara di xamee mhm. mooy mbugal yaag yooyu day teggee ko ni ko waa àjjana di xamee mooy ñam yi day fulu waaw lu doon doon benn ay junni lay doon ci la xéewal gi di multiplier wu ba ñu xam ne bësu sëñ Tuubaa bi ñëwaat na jëwrin est xam nga ne benn bës gënul benn bës benn bës magul benn bés mm-hmm. waaye yàlla dafa tànn bés feeñ looloo tax bés bi siiw moo tax ñu ñëw ba waaw dafa tànn bës feeñ moo tax bés bi siiw moo tax sëñ bi bi mag ñi ñëwee ne mbir yi ñu ngi koy tuddee waat mu ne leen déedéet day doon bidaa tudde leen ko màggal parce que tëbaski maam Ibrahima ngeen ko séqal te kooku séqu leen dara yéen man ngeen ko séqal yéen murit yi am na ko ma mos laaj ne ma waaw loolu moom fu ko murit yi teg maanaam parce que dama ko doon wax ne ko sëñ bi dafa ne wuy ji màggal da nga ciy jëlee aj umra ak jihaat munoo ma fuñ ko teg ma ne ko sëñ bi du yow sëñ bi li mu wax ci sariya yëpp dalaa convaincre kon lu mu wax ci aqiqa da nga koo war a gëm parce que dafa ne xaddamtu liggéeyal naa xareel waraa ci géej gi xidmata man liggéey bu toll ni jasaaw rabbul karimun buur bu tedd ba heure bu gessoo lim ma nar a fay xool li ma liggéey xeeb ko gessu lim ma nar a fay xool li ma liggéey xeeb ko di gessu di xeeb di gessu di xeeb ba mu yàgg mu jël kun ga fayama ko léegi nag sëñ Tuubaa ci nangu lay dox day xool nit rek ne ko yow day sa feebar nay la del togg di joxe mooy sa texe xool nit rek waaw ne ko yow sa feebar mooy rëy mhm. del wër di majal xool nit xam na kafe gi moo koy jariñ mu ne ko del segg di joxe parce que comme sëñ bi moom essant yi mbir yi yàlla fay na ko ba jox ko kun léegi ci nangu lay dox nag defar di defar di ginde lu mu dogal ci yow rek looloo lay jariñ moo tax mu woote bët bii bés bi nee na sax fi sacrifice bi buñ koy def fi ñuy rendee nag bi moo gën a gaaw ci aajo waaw bu ñuy rendi rek fasal day dem waaw parce que loolu ñuy tuur noonu deret dañ koo tuur ngir yàlla. waaye ki nga xam ni euh, dañ moo jëf ci màggal gi raw keneen ki xam ni moo ko ëpp la mu jëf. maanaam ki jëf li mu rawee ki jëfut ki jëf waaw. maanaam tool bañ a tolloo la jëf. bañ a tolloo la jëf waaw tey ma ëpp la ay jëf. Mm-hmm. déwén bu ñu fi dajee. waaw cest diir bu ñu fi dajee day feeñ. parce que sëñ bi dafa ne déggoo mu ne ku mën ginaar bu ko reyee déwén day mën xar ki rey xar déwén day mën nag mais dafa ne bul uj bu nee na li ëpp a def mooy bul rey nag ba ne sama nagu ren bi boo ko defee rek jëf ji yàqu na nee na da koy xeeb parce que nee na jëfkat bu yàlla nangoo jëfam da koy xeeb danaan a ah, ren de rey naa nag waaye déwén bëgg naa rey nag ak gëléem waaw sëñ bi nee na sëñ bi nee na mbir yi sax mbir yi du question ay jullit de même yow yow yéefar sax bës bi bu koy màggal day yokk c'est-à-dire bés bi bés bi yokkute gi maam mbiru yokkute gi leneen maanaam texe gi moom leneen la mais mbiru mbiru yokkute gi moom faalewul ku dëng ak ku jubadi faalewul ku bokk ci diine ku ci bokkul bës bi nee na booy def mu koy yóbbu moom xàmmeewul ku jubadi de ak ku dëng bésu màggal gi nii waaw moo tax sëñ bi ne lépp tawféex la lu ci nit mën a jëf rek jëf ko ci nee na fexeel ba sa dërëm wala sa ñaar dem ci jëf ji te jëf jooju du ci dugg yokkute la lay jural borom kataballaahu tabaaraka wa taala annal bayti laayil xaram tarfahu malaakatu ilaa tuuba kaabak màkka ga malaaka yi semparti nañ ko xam nga boobu toxu nit ñi liñ ci xam mooy yëpp saret ba mu fees di di yóbbu wala yëpp oto sëñ bi bi mu naan kaaba gi ñëw na boobu moom lay wax moom mooy kaaba gi mooy leer gi sëñ bi mooy aar bés bi sëñ bi mooy aar bésam mooy aar màggal gi moo tax màggal amul lu ko mën a gàllankoor ci àddina ak lu mu rëy rëy rëy rëy ak musiba lu mu garaaw garaaw déggoo waykat bi nee na borom nee na nee na borom màggal gi musiba romb na këram waaw waaw nee na musiba romb na këram moo tax sëñ bi ne yow murit bi bu fekkee da ngay dund sa dund gi jeexal ko ci man ndax nit ak mbalit ñoo yem ci kër tasawuf loolu lañ wax nee na bu mbalit mi feesee dañ koy ne nañ ko tuuri soo dee ñu ne nañ ko suuli sëñ Tuubaa bu dee yaa ne ci xolam mu ne déedéet kooku du ngeen ko sànni de parce que xol boobu maa ci ne ñu nag waykat bi wayal mu ne murit bi jeex ci Bàmba bamba da koy def ni boppam kon moom da koy teeroo ni muy teeroo boppam waaw mu tax mu ne booy dund yow murit bi sa dund gi jeexal ko ci man parce que am fayda dëgg moo jàpp ci Serigne Touba waaw jëriñ ñu ngi yemale foofu kàddu gi di bëgg Souleymane Dione bëggoon nañ mu gën a yaatu sax man maa ngi dëkk Dakar gi jawaay في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر طلائه بكوني عبد ربي خديمه